الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه نتكي بغ بغ ليام أغيين الدنيا نك وأي بو خسي نيان دغاي بايك يالا لي سي ديس ليب نداخ نون نييب خامنا نيو ني فعال لما يريد موم يالا لنن لولا نيت مانا واخ دافلاي ناخ بور لا بو خامني دافا ساج كاتنام ak sañsañam sañam foo ko takk weesu na ko ma yëkkati ay nuyoo yu tedd jëme ko ci yéen góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziyaara bu baax a baax te di jéggalu jéggalu bi may jéggalu mooy su ngeen ma woowoon ci barab ma fekk si leen man yàlla xam na ko ndax loolu lañ ñu jàngal ki ñu yaakaar tey ak ëllëg muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la dundee ba xëy sàngoo suuf ci modestie ci simplicité kon su ngeen ma woowoon ci barab man dinaa leen fekk si ma nuyu kilifa gi ngeen àndal góor gi àlla kan nga xam ni moo jiite magu Pastef yi di nuyu tamit jigéen ñi di nuyu soxna Ayda Njaay bi doon wax legi momitam ak ñi mu andal ñep di ay jigen waye ngeen bal ma mu nuyu sama dom jele yaay daba ma ngi koy nuyu momitam bu baax a baax ndax euh, ci walu papa mak walu yaayim yep suma ko ne jak rek am lu bare lu sama xel dem kon ñu ngi lay nuyu bu baax baax déglu li ngeen fi wax yep sama kaddu yi ma nak waxuma ci turu Tiwaawan il faut que ça soit clair waxuma ci benn ndigalu kilifa sama engagement bopp laa jël di ci wax en tant que citoyen sénégalais bokk ci réew mi te dara umpuma ci li ngeen may wax yépp xam naa ko di début à la fin lépp laa suivre di début à la fin ndax saa boo waxee kenn génn ni moom day waxul ci ndigalu Tiwaawan il faut faire la part des choses Tiwaawan dafa am ñaari anam yu yu ma ci bokkee benn bi ci wàllu famille la kenn ku nekk am nga sa famille man sama ay kilifa laa am lu ñu wax ci famille bi je suis entièrement d'accord nëbbatuwuma li may wax xalaatuma ko waaye bu dee gis-gisu àdduna nag je libre bu dee gis-gisu àdduna je libre kenn ku nekk itam ci ñun ak keneen ku dul ñun am nga gis-gis boo am nañ la bàyyeeg sa gis-gis rek loolu mooy démocratie ceebu géej ma gënal ceebu yàpp ku ne sañ na ko waaye waxati na waxul ci kàddu Tiwaawan waxul ci kàddu kilifa yi lii sama gis-gisu bopp la ça n'engage que moi encore une fois loolu lay wax tout le temps ngeen ñëw fi nag. wax waxu réew mi ñun ñëpp a ko bokk ku ni damay seetaan bis buy takk du la fa bàyyi sëñ Saaliwu Mbàkke rahmatullahi alayhi wa radiya anhu moo daan wax waxam ju siiw ja mag ñëpp wax nañu ba sonn ba sàngoo suuf ñuy seetaan rek naan jaru ko jaru ko matu ko matu ko ba ñu yegg foo xam ni bu yàlla sànniwul yërmandeem àdduna tukki ci suñu kaw situation réew mi fii mu toll nii ku tëdd sa néeg te am xel di xalaat rek jaaxle nga ci domaine yu baree bare baree maa ngi dégg fan yii liy dee ci géej gi kenn xamul nu mu toll ñu dem a dem a dem ba suma juumul dégg naa ci rajo am na ñu doon pare pour ambarke ñu dóor ay bal ba kenn dee ci encore dégg naa loolu ndax loolu mooy solution lan moo waral li tax xale yi di dem leketu kese naxul yi bay xale yi toog leen toog toog def lan encouragé wu li xale yi di def de mais dañuy waxante deug dem dem rey sa ci géej gi dara jaru waye xalé yi dañoo dem ba seen jeex. ça c'est la vérité ñaan teyé tulen wax ju bare teyé tulen xam nga lu leen teyé am jàpp ci li ngeen tok tank defuñu lolu nous rek yi ñuy def yépp ay embarcation yo xamante bi guddi lay doon nga xaar ba guddi nga jël ay nit yobulen ci pour ñuy contrôler di surveiller.

bu dee ci problème mu lii xew ci réew mi muy problème mu Ousmane Sonko il faut le nommer man amoon naa ci gis-gis ba recevoir ko ay Numadi kenn ku nekk sa gis-gis man dama libre ci li may def parce que nit la jaamu yàlla la ñoo bokk réew mi. nit ki nga dëkk di ko xas te toogu leen doo xam lu mu mëneeg lu mu mënewul te yàlla daf ñu ko tere in jaakum fasiqun bi nabain fa tabayyanu fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbixu ala ma faaltum nadimin yàlla nee na diw dafa bon diw dafa bon gani ni moo yées duma toog moom yàlla nee na benn nopp baaxul toogal ba xam seetal ba xam càmbaral ba xam li xew lan la boo dee jël position nga jël position boo dee jugé nga dooree jugé man bi ma déggee loolu yëpp ñuy wax dama ni man damay toog ak Ousmane Sonko ci ay numaa di laa ko recevoir ñu bokk toog ñun ñaar xaw ma lu ne ci xolam de yàlla rek a xam waaye avec toute honnêteté dama fa jóge sopp ko ndax ñaari yëf tax waxtaan nañu lu yàgg a yàgg xëy na du ma ko détaillé fii wante aya alquran bu ma commencé moom moo koy eggale xadis bu ma commencé moom moo koy yeggale wax ma ba convaincre ma ma xam ni kii am na ay valeur yu nekk ci moom loolu moom xam naa ko la ko dal booba ba léegi it ak li xew booba ba léegi maa ngi koy suivre kenn nettaliwu ma ci dara gis nga muus mi nga yore ci sa kër walla bàyyi ma bi nga yore ci sa kër boo ko toppee ba mu sës ci miir bi ci sa kaw la jëm ala waaye lu ma nekk lu ma neex teg la lu ma neex def la te doo onk doo jooy kenn amul maqaamam kenn amul maqaamam li xew nag su ma ko dee analyser dinaa ko analyser ci cadre diine sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ne daj na ko pour mission réussir pexe mu ne tegal nañ ko ko pour liquider ko waaye yàlla ci kattanam ak mën-mënam bu xasee ba décider li mu décider rek kay am wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llahu wallahu xayrul maakirin yonent bi lañ ko defaloon ba ñu demee seet ay pexe ba tàyyi xamuñu nu ñuy def te yëf yi mi ngi gën di avancer rek ñu dajaloo waa Quraysh yëpp dajaloo ci benn kër di seet solution finale boo xam ni dinañ ko mën a def ndax kii noppal leen benn yoon am ñu ni nañ ko rey benn yoon noppalu ñii ni déedéet nañ ko génn dëkk bi ñu ni leen bu ngeen ko génnee dëkk bi bu demee fuñ ko fate bu amee doole day dellusi bu dellu see ci suñu kaw la jëm si di ñu ni kon nañ ko tëj ba mu dee yàlla nee na ma toog di seetaan rek واذ فاتلكل يا سيدنا محمد يمكر بك الذين كفروا با ني لاي فخيل نيوم ييفر لي يثبتوك ني تجل سي بن بلاص باغا او يقتلوك ولا ني ري يون نوبلو او يخرجوك ولا ني генي لا دك بي ويمكرون ني فخي ويمكر الله يلا يفخي يسمى nga عثمان سونكو تيرم ريومي بير ريو مي كين منو سي دارا بو فالو والله والقران العظيم دينا في توك ييب اي نات لا يو خامني يالا موكو جارالي سي موم نخ الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ndax pas pasam ak ngeum yalla ma tax may waxe parce que toog naa moom lu mu bon bon bon def nañu deux heures d'horloge ma xam nit kii ci moom tuuti ma di ko ñaan ma di ko ñaan ndax dégg naa ba ci soxnaam yi génn bu ñu génn déglu naa yëpp keroog sama rangooñ dal na sama dënn ndax dama jàpp ni nit ki loo ko bañ bañ bañ am na foo yegg ak moom ndax yàllaay tax ak ëllëgay tax dégg naa ko tooxaw ci télé bi dinañ ko rey loolu mooy yéenéem kooku ñu bàyyi ko muy dox di taxawaalu ci dëkk bi façon wax bu ñaaw bu ne dégg naa ko ci àqam moom ak li ko jiitu yëpp déglu naa ko dama leen di wax nag ñooñu nañu nañu nañu riggal gis nga firaaw na Moussa ci biir pale ba lañ ko yare te booba jigéen ju ëmb boo dee góor sa doom bu juddee ñu rey ko yàlla nag décide décide ni moom Moussa mi ay ndawam lay doon mu jaar ak moom fi mu jaar moom ba xëy def ci moom li mu def ci moom suñu mbokki politiciens yi nañ ma baal dañuy bàyyi dañ dul bàyyi xel yàlla pexe lu mu rëy rëy rëy dogalu yàlla ko fi jiitu dogalu yàlla moo ko fi jiitu xale yi ni ñuy génne nii di def li ñuy def la ko waral du dara lu may kenn ku nekk am nga koo sopp des fois dama leen di comprendre kooka nag bu leen jaralee lu ne ñu bëgg koo teg yenn yi bu yàggee rek dañuy fippu ni ñu koy manifester nag est-ce que ànd naa ci walla ànduma ci nañu seet beneen forme bu ñuy doxalee ndax yàq goo xamante ni bii tey jii bu président bi ngay woteel ñëwee ba toog dafay commencer waat à zéro boobu baaxul beneen bi ci topp mooy Seydina Ousmane dégg naa ñu ni dafa bañ a lekk bañ naan version yu bare laa ci am. ñii ni dafa bañ ñu dugal dara ci lekkam jox ko ko moo yay nag ah waaw nañu waxante dëgg rek ku ndobin rey samaam boo gisee lu ñuul dangay daw foofu mu tëye d'accord naa ci de bu dee loolu la rek ki la nar fexeel nu mu def ba fexeel la gaddee dee rek dina ko def waaye bakkan ci loxo yàlla la nekk ma di ko ñaan ma di ko ñaan en tant que jullit en tant que frère en tant que soppe mu lekk lekku soxnaam wala ku mu ñu andil ko lekk na ko lekk man am na ñoo xam ni duma ma waxanteeg ñoom parce que bu demee am na ñoo xam ni bu ñu àggee ci ci ñaaw jikko ba di fen di sosal nit nawloowuma la bay waxanteeg yow xalaatuma ko sax kon nous te ñi koy def li wala ñi tax def li parce que Ousmane dotul mom rek dotul famem rek la wax ñu ko ñu ni dañu tas Pastef kayit la tas waye li ci ça c'est la vérité gis nga nit ñi dafa am lo xamni ñu bare comprendre ñu ko xamna sumay paré nak pare réseaux sociaux yi jogati lu wax baxna na awma problème yoy man gannaaw ngok yalla jox leen lima xam ba xam ko dal lu sama bay bi déggul won amul lu yonenti bi déggul won amul yalla mi bind lu mu déggul sax amul xam nga lan moy sama problème man am problème de conscience waaye ki toog ci gannaaw kiyam di ma saaga amul problème beneen bi ci des xale yi la jeunesse àgg nañu ci xol bu tàng foo xam ni foo ko takk weesu na ko te nit ñi bàyyiwuñ ci xel xam nga lu ko waral ñi dee ñëpp ñi dee ñépp bu jullit weesoo ci ñoom ak ñi ci nekk jullit. tijaan ci nekk murid ci nekk xaadir ci nekk laayeen ci nekk di suñu ay njabootu bopp kon bu ñu déggul kenn ku wax seen xol day tàng bu tiwaawan jotee ñu fax wuti tiwaawan bu tuubaa jotee ñu fax wuti tuubaa laayeen noonu ñaseen noonu cana ba noonu man sama xalaatu bopp laay wax kenn joxu leen paas xale yi bu ñu ñëwee est-ce que lekk nañu ba suur wala déet wóoru la nekkin ba ak xataay ba ñu muñ ko bu ñuy dem yëkkati sa ñaar bàyyi ko fa dem ñooñu bu ñu amee soxla bu ñu la déggul seen xool tàng. nañu delloo ci sago yi nañu delloo ci xel yi mbokk yi wax yépp wax nañ ko yàq taxuñoo jóg ñun defare na ñu tax a jóg mais defar ci dëgg gis nga dëgg fu mu amul noflaay du fa am. justice fu mu amul noflay du fa am way bari rek ci ay pexe nak ki complot te loolu dafay jeex xaalaakule hal li xew ci Afrique gis nañu ko mohammed Bazoum animu jeexal na Alpha Condé animu et tant d'autres yàlla bu la denké pouvoir dafa bëgg nga gestu am yërmande mm-hmm. man dégg naa ñu ni maa ngi ñaan président de la république Macky Sall situation bi mu jëm ko dakkal mu jeex bërki démb dama dégg ñu dama gis ci télévision ñu ni dafa umra ji woon demoon na màkk itam aji ku jóge ci yonent bi war a mën a soppeeku foofu ku fa dem toog ci sayiduna muhammad looy wax war nga ko xam looy def war nga ko xam ma koy wax ni ko dañ daan wax ni sax dama contre dama contre man lu may contre lan lay contre lenn nag mën naa ko toujours ma wax ko mënumaa fal mënumaa folli waaye mën naa xëpp ci suuf si cere ji suuf mënumaa fal mënumaa folli waaye am naa xalaat ci réew mi te xam naa fu may jaar ñi ne nañ dama tàng ñi ni dafa naqari deret ñi ni li muy wax kenn wax loowu ko ko man ba ma yàlla ne ba ma yàlla ne ba nga amee dix-huit ans loo defati ma bind ci laa jël samay responsabilité bopp حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني بس كورنا من يدنين مدوغ الفوخ أمني كان دوما ففك ما لا يكسم بروب كون لي ما يوخ دمو كي يوخ بور لنترى دي سنغال تانك عثمان نيون كي دف يي نيون كي دف دي كو تجي كاسو بي متتال ريو مي دونيو نيك سي جامو دي من ما لين كو وخ سا il faut le dire c'est la vérité parce que amna ño xamanteni bi tamit mom lañu choisir kenn ku nekk mën nga def choisir ku la neex ku nekk am nga sa choix su doon sama sago it président Macky Sall dinañ ni xale yi dañoo yàq teer bi dañoo def lii dañoo def lii dañoo def lii lan moo tax ñu def loolu. moo tax solution du am mukk parce que tëj bi tëj bi tëj bi du solution de man sama xalaatu bopp laay wax kaso yi fees na. 1101 ñu bare bare damay dégg ñuy wax ni dañu doon génn sax di liggéey ñu fekk leen fa ku defar bañ dugub sax ñu ni Ousmane Sonko daf ko bëgg nga defar ñu ñëw fekk la fa ni la tiib nga takk sa bracelet génn ñu ni la tiib ci Sonko nga bokk vraiment loolu moom honnêtement honnêtement nit war na ëppale boppam loolu gis nga kër gi nga nekk sax sama kër gi sama plat préféré xam naa ko mais sama doom am na plat préféré joxe dépense nag bu mu tax ma ni ko bés bu ne lii moo fiy togg loolu lañ fiy togg bés bés dina ñëw mu ni ma fi ñeme ñukk fëgg ci voisin yi kenn dem lekk fa ceebu yàppam loolu ku ne sañ na ko nañu bàyyi na naxante yi gis nga réew mi fi mu toll coo toog waxtaan la laaj maslaa bi ëpp na raayalante gannaaw bi ëpp na. à la limite dem ba boo dee seetaan émission yi ci télé bi da lay wóor ni léegi espèce su mbañeel gu bu extraordinaire moo fi am mbañeel goo xam ni xamuloo lan moo ko waral iñaanante bi soxorante bi boddikonte bi te ñu wax ni jàmm la ñu bëgg gis nga jàmm ku ko bëgg dafa am noo koy doxalee nañu delloo ci xel yi parti au pouvoir yàlla ni Macky Sall moo fiy toog de tel date ba tel date def na loo xam ni ñëpp apprécier woon nañ ko mooy duma bokk commentaires yi si nit ñi def nag intéressé wu ma ñàkk pexe la dañ ko dañ koo sës ci miir bi mënatul dem loolu yëpp allahu alam mais daal nee na bokkatul waaw kon li ci des mooy dem demin bu rafet jàmm am Jam am am mais encore une fois ci cadre Ousmane Sonko lay wax parce que ma si man def politique wala may out di ci parti ci jamono yi ñu Pastef lay adhérer ku ne sañ n'ako. Ma wax rek ku ne Njaga Mbay Njaga Mbay ah. yàlla na ko yàlla yërëm yaa fi war a wax yaa ñu saf bu la taxa a wax loo xamul ku ne am na ku la saf ñun ci cadre boobu la ñuy waxee jàmm rek lañu bëgg ci réew mi nag yàq taxuñoo jóg wax lu ñaaw taxuñoo jóg gaaral nit taxuñoo jóg kontur sama ay kilifa taxuma jóg waaye damay wax ni affaire famille ak affaire gis-gisu àdduna du benn boo waxee ñu ni Tiwaawan waxuñu lii Tiwaawan affaire beneen affaire la kilifa nga fa sama ay kilifa rek ka fa nekk yàlla nañ fi yàgg gudd fan yàlla may leen lu bare bare bare ci ay may ak kilifa diine yi fi nekk sëñ Muntaxa noonu màggalu Tuubaa bi yàlla na fi yàlla def jàmm ñëpp dem ci jàmm dellu si ci jàmm ñun contre ñu ñooñu déedéet waaye dafa am nag loo xam ni nag suñu responsabilité bopp la nañ ñu ko bàyyee parce que bu ma yàlla di duma ëllëg wala mu may laaj du laaj sëñ du ni ko kaay réew mi dama cee bokk am naa ci xalaat su ma ko waxee su ma ko waxul am naa ci xalaat mais wax bi ma koy wax ça ne veut pas dama contre wala dama loin de là loin de là waaye da ngeen ñëw seet si ma ñu waxtaan ci loo xamante bi wal wax man ci sama wàllu bopp préoccupé na ma bu baax a baax muy kaawu Ousmane Sonko nañ ko bàyyi mu dellu si njabootam wala bon bokk buñ ko mënul bàyyi mu dellu si njabootam nañu seet yëf yi nu ñu koy tege ba mu woyof ñu bàyyi ko mu dem faju ji ci continuer procès ñu xam mais ci man daf ma yéem ci yi durant deux ans ma di suivre yëf yi ñu dem ba benn bis ñu ni lañ ko doon toppee wax dëgg yàlla amul donc y un problème nag nañ waxante dëgg quand même nañ waxante dëgg topp nit deux ans ci benn mbir dem ba mu yàgg nga ni non non li ma ko doon toppee dara amu ci lu xew kon lan la. ak yeneen yi ñu teg yépp ci kanamam est ce que est ce amul allahu alam yalla rek xam mais man dama ni dama ni li ma toog ak Ousmane Sonko mu wax ma ko jusqu'à preuve du contraire am na xam ni ni moom la wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla benn yoon lañ mas gisee mu toog ak man waxanteeg man te doomu gor la jullit la xam naa ni gëm na yàlla wóolu na yàlla Muhammad loolu wóor na ma kon nag duñu jóg rek ni ma bul waxanteeg moom bul toog ak moom wala boo toogeeg moom nangam nangam nangam moo taxoon ma jël sama ay engagement bopp ni damay toog ak moom lii may wax nag dina metti ñu bare ah dinaa leen ko wax dina metti ñu baree baree baree bare waaye nag man xooluma ñooñu xam nga kan laay xool yàlla mi nga xam ni moom ma bind yàlla laay xool ak sama conscience su ma tëddee rek nelaw laa bëgg waaye tëdd di jéppi sama bopp ci li ma doon wax billaahi lu ma gëm laa leen wax lu ma gëm a gëm laa leen wax booba ba léegi dama ni pat di observer di xool situation bi rek di xool situation bi rek ba toll fii faf yàlla dogal daje bi kon ñu ngi ñaan président mbirum Ousmane Sonko nañ ko teg ci suuf ëllëgay tax dégg naa fi ay kàddu yoo xam ni ñu wax ko ci jëmm ji wallahi alazim man dama naan su yàlla defoon mu toog tey yore Sénégal ñooñu nan lañ koy xoolee ci bët bu boobaa xanaa gars yi toxu de wala uti yeneen nationalité ndax dégg naa fi ñu wax ba géex nañ ko rey nañ ko rey xoolal ma wax bu ñaaw bi wax bu ñaawa ngi noonu nañ ko rey dégg naa ñuy joxe ay prétexte ngeen baal ma nag ci terme bi gatsa gatsa cooki fin nee naa la mbirum Ousmane Sonko dafa ma intéressé ba dara duma ci raw keroog bañ koy jëlee ba ñuy dajji oto bi maa ngi tiim télé bi nii ba ñuy toj parabrise oto ma ni ah bi nag di ëpp na moom dëgg yàlla bañ koy arrêté ji ba ñuy dem këram di dajji lépp laa seetaan sama ruq laay toog rek mais lu ne laay seetaan xam nga lu tax ñun dafa am benn mission boo xam ne xëy na sax bokkuma ci waaye képp ku yàlla nattu ku yàlla nattu laa wax nga am responsabilité ñetti nit topp la ñett laa wax de bu yowmal xiyaamatee di nga rëccu waxantuma la ak àdduna topp la nga war a xam li xew ci réew mi mm-hmm. war ciy wax mm-hmm. ngeen baal ma dinaa cité sëñ Abdoul Aziz baax benn yoon parce que daaw daf ñu ko daan tere di ko cité ci waxtaan daf daan wax ni su ngeen dematee ci mbooloo di waxtaan waaye bu leen ma tudd wax leen yonent bi moo gën a gàtt parce que bu ngeen waxee seen baay keneen am na baayam bu ngeen waxee seen maam keneen am na maamam mais wax leen yonent bi rek mu jeex dama daan gis bu tabaski jotee wala korité ba ñu julli ji ba ci ngoon day àbb poste rajo bu ndaw xutba yi ci Sénégal yëpp lay déglu nii lañ koy tafalee rajo bi ci noppam Thiès dégg ngeen Thiès lu ñu wax waa Touba ndax sëñ bi xutba na ba pare cene ba ndax xutba nañu ba pare responsabilité la affaire bi du nguur de du nguur du nguur yëf yi du nguur yàlla nee na kenn ku nekk dinaa la laaj dinaa la topp ba nga jàpp ni yow rek laa mës bind ci suuratu Taha yàlla nee na kenn par kenn Habib ak ñun ñi toog fii ñëpp ay ngal la ñu am ay responsabilité ay nit topp leen nag ñooñu fu ñu jëm kon yëf yi du nguur yëf yi du nguur yëf yi du nguur nañu delloo si xel yi delloo si sago yi kenn ku nekk ñu jox la sa cër. lii mu jéem ko dakkal parce que bu ko neexee mu yam fi waaw bu ko neexee mu yam fi jeexal na ba pare wax na ni moom day dem macha allahu taala ñëpp apprécier ko donc lii ci tegu yëpp nag day tilimalaat lu bare lu mu defaroon ci gannaaw wala gannaawam loolu moom mooy la vérité kon maa ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant maa ngi toog ak sama benn cousin nag muy Baba Gaye bii nekk sama bras droit nekk sama confident mhm. moom itam dama ni ko woon pour mu ñëw ci mhm. awoon la jóge tey ci suba comme dama ni ko woon da ngeen fii ñëw mm-hmm. ma ñaanoon ko ni ko su ñëwee moom itam mu ñëw wétali ak wétali ma ak euh, yéen ñu bokk sànnante kàddu mm-hmm. maa ngi nuyu sama jigéen ñu baax ñile mm-hmm. di ndey di soxna di lépp wax dëgg yàlla naka jekk nii la mës di demee olof njaay nee na benn loxoy takk ñaari loxoy takk tubéy waaye ñaari loxoy takk sér te lii yàgg na ci lislaam ca jamonoy sayiduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallama ak la ko jiitu woon sayidatuna Khadija moo fi taxawoon ci wetam jàppale ko ba missiom yegg fi mu yegg ku ne dégg nga ba tàyyi firikat yi di firi keroog ba ko jibril jëkkee dikkal ñu naan jinne laak nangam laak nangam laak lu ne ñu wax ko ko sayidatuna Khadija moo ko woo ba mu ñëw mu teg ko ci poojam ni ko buñ boo boo ko gisatee muy ñëw nang ma ko wax yonent bi toog ba mu yàgg mu ni ko mu ngi ñëw mu ngi ñëw Xadija sayyidatuna Xadija foqi musóoram malaaka mi def demi mu ni ko kon malaaka la kooku yàgg na fi alalam yëpp mu jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawu ko ci biir taxawu ko ci biti sayidatuna Aïcha noonu mm. képp ku baax ku ne mm. yéen leen jur mm. kon ay ndey ngeen c'est c'est normal c'est logique lu mel nii ngeen gis ko muy xew ci doomu jàmbur ngeen war a mën a jóg ànd loolu pour jéem ko xeex ndax mu yem fi maag yéen incha allahu taala man itam loolu moom ma fi toogloo man contre ma kenn daluma ci kew kenn contre ma sama bopp ndax nit du toog ci garab ba pare di ko dagg xanaa buñ ne dama contre Tiwaawan dama contre lu ne la ñuy wax lu ne la ñuy wax man dama noppal sama bopp fii ma toll nii guddi yi dama wóoloot dama seedelootul benn doomu aadama dama seedelootul benn doomu aadama ci lenn nag néew ma wóoluwuma kenn de waaye seedelootuma kenn dara comme xam naa ni كي تي كاو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سهلة ول ماي راي سامو بوك واخ جي لي لا وون غودو غات دوما غودل بو فكيني ني امنا تي لو خامني دا فا نيرو ولا مو مو لال خمغا افيرو واخ دا فا دا فا سنسيبل دا فا سنسيبل من nga wax dara fekk na nit déggé ko neneen interprétation yi moom kenn mënu ko bañ waaye yàq taxu ñoo jóg wax safaan taxu ñoo jóg taal réew mi taxu ñoo jóg ndax ñun amuñu fu dul Sénégal amuñu fu fu ñuy daw dem waxtaan la boo xam ni dafa dal ci suñu mbokk moo xam ni ëllëg mën na dal ku nekk ñu doon ci échanger doon ci waxtaan di waxtaan ak ki nga xam ni tey jii mooy ndeyumbu ligi muy président de la république nga xam ni moom la yàlla jox réew mi responsabilité bi yëpp ci moom lay reposé wu man sama kàddu ci moom laa koy adressé directement situation bi toll na foo xam ni bu ñu bëggee jàmmi réew mi nañu teggi tànk te bàyyi kii mu dem. Mhm. bu fekkente ni bi yàlla dafa dogal nii la mu def xam nañu naam et conscience te ñëpp nee nañu defu ko ñu bàyyi ko mu dem def élection comme tout le monde comme moom mbokkatul kay. Mhm. nañ ko bàyyi moom mu dem waaye li ma leen wax rek. bu résultat yi génnee 9 heures mu nekk président 10 heures loolu mom amna ndax dama xam bu baax fi may wax parce que affaire tas Pastef ci ay keuyit di sudur ben parti dem di euh, dem ci ay euh, dem ci ay euh, sen sen 16 diko diko diko ko def yenn vraiment loolu mom c'est c'est c'est-à-dire dafa dafa jiko jikko bu dafa touti trop quoi. dafa tuuti trop jikko bu tuuti la nit ki mën nga ko xeex mën nga ko contre mën nga def lu la neex mais gis nga li problème bi mooy xol bu ci xas ba dugg dootu fa jóg te xale yi ma gis ak ñi ma ci jot a xam ñi ma ciy gis ñuy doxe nii kenn mënatul génn lii ci seen bopp moo tax nag damay wax ni xaw ma lu yàlla di def ëllëg mais Ousmane bu nekkoon président mooy gën a sonn ku fi jëm sa jaar loolu tamit il faut mu xam ko Senghor jàll na fi boobu daf ñoo nax ba dem naan ñu 2000 Paris ce sera xaw ma Sénégal ce ko waaw ñu ngi en 2023 waaw fan la ani Paris ja ñun de fekke ko xaw ma ah lacrymogène Abdou ñëw nekk fi lim fi nekk ba xëy dem euh, monsieur Forage et madame Moulin dem na Ablaye Wade ñëw nekk fi ba dem Macky Sall ñëw nekk fi ba dem gis nga Ousmane bu yàlla dogalee mu nekk président ñooñu ñëpp moo leen di gën a sonn parce que gëm gëmloo na nit ñii loo xam ne yaakaar bi àgg na foo xam ni moom sax yaakaar naa ni xëy na mesuré wu ko rëy na trop parce que lii problème bi mooy dafa am loo xam ne moom la wax sénégalais yi jaay leen ko ba ñu jënd ko marchandise bi adapté ko di xaar nag la résultat moo tax ma ni la moom moo gën a dugg ne rubba waaye ñu ngi ñaan suñu boroom yal na ko yàlla génn ci lii mu nekk yal na ko yàlla génne ci lii mu nekk yal na ko yàlla génne ci lii mu nekk ndax bakkan nag nekkul ci loxo nit bakkan ci loxo yàlla la nekk waaye nañu ñaan yàlla ba ñu teggi tànk balaa safaan di xew su boba mu nek safara ju jur kita nak hmm. billahi wa kitaab man ma len ko wax ma ngi yamale fi kaddu yi suma ci juumee ngeen balma di len santat te di len masawu ci coono yi te xamni ni len waxon rek suma ma xamee lay deme yalla xamna ni fu ngeen nek ma fekk len fa ñu bokku tok waxtaan kon luma ci wax ta muy safaan ki deglo kenen ki deg wax jek jubluwuma ci lu naqari nit mm. wala lu neex nit mm. dama doon wax rek li may sentir te di ko dund en tant que sénégalais mm. doomu aadama laa comme ñëpp dama am xol comme ñëpp mën naa juum mën naa wax dëgg mën nga sa kii mën nga tooñ kii waaye loolu taxuma woon a jóg lu ci waay dégg muy safaan maa ngi koy jéggalu parce que doomu aadama matul waaye réew mi rek ka ñu ñor nag réew mi rek a ñu ñor amuñu lu dul Sénégal yal na fi yàlla def jàmm yal na fi yàlla def jàmm yal na fi yàlla def jàmm mais pour encore une fois il est temps ñu jéem a toog waxtaan yëf yi ëpp na. lii xew kenn xamul lan la xale yaa ngi dee ci géej gi ñii ñu rey ci manifestation yi kenn xamul nu ñu toll te ba léegi seen ay wajur a ngi toog di xaar ah. nañu jéem a seet beneen voie ak beneen moyen ak yeneen solution bu dul bii ndax doole yàlla rek am doole kenn amul doole ndax ku am doole bés dina ñëw doole ja ñu mbankaañ la dugal la ci juróom-ñaari perkaal gas ba mu xóot rokkas ay mool nit ñi dem añi naani seen ataaya yàlla des fi di yàlla rek kon nañu bàyyi xel loolu nañu bàyyi xel bés boobu maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin